waaye nag mbokk yi lii su ma ko waxee dinaa leen wax nag wax naa leen li ñu war a def waaye su ma ko daanee dinaa leen wax nag li nga xam ne mooy ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy fexe subaak ngoon guddeeg bëccëg pour essayer dal suñu kaw ak pour essayer bloquer yàq projet bi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey boobu ba léegi yàlla def ci lim ciy def ndax su ngeen fàttalikoo bi ñuy door kenn xamuñu ci Sénégal ba mu daj 2017 ba ñuy campagne dañ doon wër ci marché yi di jeex nit ñi pour essayer am quelques personnes yu ñuy waxal 2019 gis ngeen li xew 2022 nag moom tawar fu projet boobu nag lañu bëgg a fexe ba gàkkal ko ñu ko bëgg nag ñaar ñii la nguuru Macky Sall la ak nguur gu ñuy wax France nguuru Macky Sall ak nguur gu ñuy wax France ñoo ne Sénégal de ñépp mën nañ ci falu ba mu des Ousmane Sonko ndax fu mu bëgg a jëmee jëmale senegal baaxul ci ñun bu dee nguuru Macky Sall nag lañu ragal ñëpp xam nañ ko ndax ku ñu jox réew jamono lu mat fukki eh, fukki fan ak fukki at ak ñaar nga liggéey fa liñ ci liggéey ci naka sudul noonu boo tëddee doo nelaw te yaakaar nga ni boo fi jógee musiba dal la moo tax toujours lañuy ñuy bëgg woon ñoom mooy ñoom seen fulla gi ñuy wane ci ñàkk nekk ci dëgg moo ëpp doole fulla gi ñu war a wane ñun ci nekk dëgg gi ñu nekk dëgg xam nga ndax sénégalais dégg nañ li ma wax ñëpp xam nañ ñu nekkuñu ci dëgg yoruñu réew mi ci dëgg alalu réew mi randal nañ ko lii jaay nañ ko tubaab yeeg ñeneen ak ñeneen tëj nañu ay nit ci loo xam ne du yoon duma nañu ay nit ci loo xam ne du yoon nañu ay nit loo xam ne du yoon kon loolu lan moo gën a garaaw ci ñàkk nekk ci dëgg waaye malgré tout moom bëgg nañu gëmloo ni moo ñu ëpp fulla ñun gëm nañu ñoo nekk ci dëgg ci yéene gi ñu am ci réew mi ci jàmm gi ñu dawal ci réew mi ci bëgg-bëgg gi ñu am ci réew mi ak ci Afrique dama ne bu dee loolu am na ñun ñoo war a suñu bopp moo tax pexe yi bëri na weer yi di ñëw kenn ku nekk na fagaru waajal boppam takku ndax ña ngay pexe ci wàllu tourisme wàllu terrorisme fabriqué nañu seeni i yu leen neex jàpp ay nit barki démb rek kenn ci ñi ñu jàpp naan dañ leen tuddee xawma ma lan woote na de la prison ne fi nii bés bu leen dinañ ñëw def leen pression ne leen changé leen seen déclaration wax leen rek ni Ousmane Sonko moo ne suñu gannaaw moo ñu yónni moo ñu def loo moo ñu transféré xaalis bi bu ko defee ñu yóbbu leen ci procureur ut arrangement démb rek tey wax naa ceeg avocat yi ma wax sénégalais yi nii ndem si yàlla François Mancabou la tax ñu torturer ko ba bakkanam jaar fa li may wax nii ay ñi ko jege ñoo ma ne moom moo leen ko wax ñu ko jege ci ay conseillers ne dañ ko ne il faut nga signer PV boo xam ne da ngay wax ni yow da ngay liggéey ak Ousmane ko te sooy dem Casamance d'ailleurs moom ngay dem seeti pour jël ay instructions que yow en tant que expert yaa doon organiser moo tax daaw bi ñu bëggee dugg këram ñu amoon jafe-jafe yow yaay woog Momo. nga xam ne ci samay garde corps nag di ko jox ay instruction parce que yow xam nga suñuy technique mu lànk ne leen lii duma ko mës a signé parce que musuma gis Ousmane Sonko lu dul ci télé xaw ma ko musuma wax ak moom ci téléphone te man homme d'honneur la ci deret ak ci formation kon duma ko signé looloo andi toroxal yi ko toroxal ba bakkanam rot may seere ci kanamu famiyam ne ñoom ñëpp war nañoo am fierté ci nit ku mel noonu yàlla métier xam ne ni musuma gis transport manquable waaye ñaanoon naa yàlla mu daj dajale ma xamle ma ak nit ñu mel noonu parce que réew néew na léegi ci senegal ña ngay fenk dossier terrorisme bis bu ne ñu jàpp benn nit yokk ci ña ngay fenk dossier rébellion déggoo ngeen nii Ousmane al naka jaata jël ko ne kooku ñoo ngi koy togg pour fexe ba avoué ko ay mbir ne ko ni yow am nga ay lien ak Ousmane ña ngay fenk dossier 94 milliards ndax ñoom avocat yi ñu dem bi di saisir sax ay ay France ak yooyu xamuñu ni man yëg naa ko dossier 94 milliards dossier siif dem nañ ba xam ni benn avocat bu mat avocat Sénégal du dugg siifu ñàkk fayda ñu dem di uti ay avocat France te consulat bi ci boppam kuy liggéey ci consulat bi moom mooy porté loolu ci dossier yoo xam ne ne nañ seen dossier privé ña ngay waajal loolu également façon dossier bu ne ñu ngi koy waajal nee nañu xañ nañu léegi Ousmane Sonko immunité parlementaire donc saa su génnee di wax dañoo am seen benn laboratoire boo xam ne kàddu gu ne ñu ngi koy saytu pour ban kàddu la ñu mën a wëlbati dem tribunal pour am diffusion de fausse nouvelle wala diffamation parce que xam nga lan moo yitte bi di jàpp Ousmane Sonko tëj ko kaso de ndax Ousmane Sonko biir kaso moo gën a nekk xal nag Ousmane Sonko ci biti du loolu mooy seen problème. seen problème mooy ni ñu fexe ba am benn condamnation même su au sursis pour que Ousmane Sonko dootul nekk candidat en 2024 moo tax ma ne kenn ku nekk ci militants yi ak militantes yi na fagaru waajal boppam parce que Macky Sall waruñoo ëpp fulla bu loolu amee rek mooy li ñuy woote ci souveraineté bi ñu bëgg ñun indépendance véritable bi ñu bëgg ci suñu réew moomaat suñu bopp bi ñu bëgg kon loolu du dëgg si ñun li muy def yëpp nag mu ngi ko lal ci ñett ba ñeent mu ngi ko lal ci police wala ñiy commandé police mu ngi ko lal ci gendarmerie wala ñiy commandé gendarmerie mu ngi ko lalal ci benn groupe magistrat boo xam ne ñëpp xam nañ leen waaye mu ngi ko lal ci benn parti média bi nga xam ne saa su ne ñu koy jox leen ne leen bind leen lu bon ci Ousmane soow saa su ne ñu def gros titre bind lu bon waaye c'est peine perdue ndax koo xam ne yaa ngi koy fexeel boobu ba léegi tuumal nga ko lu ne yàq nga deram te su génnoon léegi ci ci taxaw ci trottoir bi meeting am fii nga war a xam ni sa pexe na na sax na waaye buñ leen xeet ci seen i pexe rawatina nag bu ci France duggee